وأسبلن علينا رب عافية وهب لنا القصد في الدارين يمام وافتح لنا كل باب كنت فاتحه لسالهين من الخيرات يمام واسلك بنا نهج رشد واكفنا زللا وكن لنا jiitu mooy dañoo seetlu ne ndaw yi réew mi yëpp ñi dëkk ci village yi ñi dëkk ci communes yi ak communauté rurale yi bu wut liggéey jotee dañuy bàyyi seeni gox ak seeni goxaan takk seeni i saret jël seen xam-xam gedd tool yi daw dem ndakaaru yow da ngaa jëlee ay doomi ndakaaru ak grande ville yi ay ndaw indi leen fii Sikori ñu nekk ci tool yi di bay di jàng alxuraan di tarbiyu di defaru loolu contraire exode rural la Mbacké Balla bëggoon xam loolu nees di def ba réussir ko ndax loolu modèle la boo xam ne bu ñu ko saytoo xëy na mën naa jàppale état ndax aujourd'hui ñu ngi wax lu ñuy wax employabilité des jeunes te yow yaa ngi ciy bay waar wu rëy bu weesoo liggéey bi ñuy liggéey sax yar bi ñuy am ak fonk gi ñuy fonk seen diine ak seen i waajur loolu nees ko mën a jàngatee ci euh, ni nga réussir ba def ko Mbàkke ndeysaan <laughs> jërëjëf Pape Sidi da ngaa <laughs> lu lu fi yàgg nekk la luñ fi fekk la te it euh, gëm naa ne luñ fi bàyyi la ndax du man bu mhm. tedd gi Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul ak Cheikh Ibrahima Fati euh, ñoom ñoo ko ñu fi bàyyil ndax bañ fi nekk ndakaaru am na ndar am na feneen ak feneen ak feneen am na waaye terewul yàlla sama borom miy séddale lam leen séddee ah, bañ ca bëggee def lañ ca bëgg a def dañ faa bàyyi dëkk ba dem ci àll ba dëkki fa ndax nit am na foo xam ne bu fa tolloo da nga koy yóbbu tàmmal ko ñemeel ko mu ñeme coono. Mm-hmm. ñeme wéetaay ñeme ñam lu neex ñam lu naqari koo xam ne daa judd ci lu neex nag jàngal ko lu naqari dina xaw a jafe waaye nag jafewut yàlla jafewut Serigne Touba ndax yàlla sama borom lépp loo xamante ni bi nekk na fa moom gërëm na ci sëriñ Tuubaa ngërëm loo xamante ni bu ko sëriñ bi bëggee ci boppam wala mu bëggal ko kenn ci njabootam lu lu lu yomb daf lay doon mm-hmm. mbokki taalibe yi nga xamante ni bi tey ñoo génn Ndakaaru wala ñu génn Ndar wala ñu génn Kaolack wala fu mu mënti doon ci biir Sénégal ba Ziguinchor euh, ñëw nekk ak man fii dafa nekk ñoo xamante ni bi yàlla kese daf leen yëkkati yàlla kese moo leen fi bàyyi ndax fii ku fi ñoo xam ne luxe bu fi téye kenn amu bànneex bu fi téye kenn amu fi ab àll la boo xamante ni bii dara new fi lu dul maag ñoom di jéem di góor góorlu suñu kem kattan euh, tamit mu ànd ak pas-pas ak ngëm pas-pas ak ngëm bi ci jiitu mooy ay doomu aadama lañ ay jullit lañu ay murit lañ Sëriñ Tuubaa lañ yaakaar waaye tamit ñu di ay ndaw tolloog fu jamono euh, niñ koy mën a tuddee ci. Euh, ñi nga xamante ni bi dañoo jàng te xam te jàng xam fi suñu borom waxeek ñun ci axiru zaman li ñuy tuddee axiru mu mujjug jamono euh, bu ñu fa tolloo ñu gis ni jamono ji ni muy doxee ak mandarga yee ñuy joxoon kon dañuy gis ni dañoo toll ci moment boo xamante ni bi ku bëgg a mucc faaw nga nangoo wét faw nga ñemee wéetaay donc bu ko defee ak it jom di jéem a wut jom ndax loo xamante ni bi da nga ñëw fekk ñu defaral la ko ba mu jekk boo mënta yokk taar ba tamit war ngaa mën a góor góorlu ba taar boobu noonu dara du ko soppi. Mm-hmm. taar ba du yàqu kon lii ñuy def ni euh, lu fi fekk la dañ ciy jéem a rek góorgóorluwaat suñu kem kattan ba nañ ñu ko bàyyee la woon buñ ko mënta rendre plus ñu jëm ci góorgóorlu ba nam meloon moom dara du ca sikk loolu moo tax euh, ñu ma ànd ak ñoom ñu jaayante ko ñëw toog fi di jéem a góorgóorlu suñu kem kattan euh, ba defar ci suñu àdduna aussi loo xamante ni bi ëllëg suñuy doom ak suñuy sët bu ñëwee daañu xam ne fii kat la seeni i baay tegoon seen tànk fii kat la seeni i maam tegoon seen tànk ñoom ñu am jom ak fule man faa teg seen tànk ngir yàlla sama borom dimbala mën a sax dafa mel ne daf ñuy tegtal ne sikkoor ga ñu xamoon ak gii wute na biraayam ndax ndax ndax euh, ndax maam euh, lal nañ godor euh, lal nañ kii bi latérite bi forage bi ñëw na courant bi yegsi na ren réseau bi kenn jooyul dara maam loolu moom nu ñu ko lijjante waaw waaw loolu yëpp dafay bokk ci doomu aadama ak dundinu àddunaam ak doomu aadama yi mu ko seqal xamoo nit bu fekkente ne yàlla sama borom dalaa dimbale nga cultiver ci sa bopp yar cultiver ci sa bopp ay teggin cultiver ci sa bopp ma ba noppi tamit defar sa jëmm ba ku ko gis sopp ko ah, fu bari foo taxaw loo fa bëgg boo ko amul rek daa fekk ne sama borom dogalu ko waaye am na loo xamante ni bii bu ko sama borom dimbalee nit ki fu mu taxaw am na loo xam ne bu ko bëggee du ko jafe. Mhm. lii nga fi gis yooyu yëpp wax ko mooy forage bi ak lii nga xamante ni bii dañ koo tàmbali nii te àggagul ndax màggal gi moo tax sax ñu def ko nii waaye àggagul dañu ko defal nii ngir ñu mën cee jaar ngir ñëw màggal si waaye. luy sotti ca anam ba nga xamante ne bi lañ ko bëggee lay doon ndax loolu dama ciy profité sax sant le président de la république ndax euh, loolu yëpp tey moom la ndax dama gisante ak moom ma ne ko man kat damaa nekk ci àll boo xamante ni bi dama fa nekk te am yéene def fa développe ko ba nga xam ni euh, suñu woy jur yi ñuy ko fi bàyyiloon bu ëllëgee du ñu am kersa suñu diggante ak ñoom mu laaj ma ma ne ko Chikor yi ñuy waxtaan ci ma ne ko mu ne ma loo fa bëgg ma ne ko ak bëgg moom la ma fa bëgg sama borom mi mu fa yóbbu xam naa dina ko def waaye dafa ma fa am daal loo xamante ni bi moom bu ma sañoon mu am fa mu ne ma lan la ma ne ko ndox ak yoon ak leneen loo xamante ni bi suñu borom def na mu ma faa mën a nekk ak njaboot ga ma fa nekkal ak njaboot ga ma fay fekk si nan laa mën a def ngir suñu dundin wi ñuy dund foofu ak dundin wuy continuer ba ñu mën a am stabilité bu ñu mën a permettre la ñu bëgg a def ñu man ko def ci suñu ci suñu teewu bakkan mu ne ma d'accord léegi yaa ngi waxtaan ma ne ko mbokki talibe yi nga xamante ni bi nag ñoom ñoo nekk ak man yàlla sama borom dafa defoon ñu tàmbali woon fa ñu doon fa def forage forage bi dem na ba bëtt bay génne ndox waaye suñu borom daf cee teg nag forage boobu jàpp naa ni pendant dix ans saa bu ñu ci dugalee pompe bu ñu pompee du mat semaine mu lakk mujj muy gasu di génne suuf Euh, jënd naa cinq pompes yoo xamante ni bu ma ko dugalee damay lakk mu ne ma ah ma ne ko waaw mu ne ma bon loolu moom dinaa ko lijjanti ma ne ko ak yoon wu ñuy jaar mu ne ma dina ko fi def forage baa ngi ne tey fukki village ak ñett mi ngi sama ginnaaw te la ñuy alimenté wu euh, yoon bi tàmbali nañ ko incha allahu rabbi ci kattanu sama boroom ñu koy ñaan mu dimbali ñu ba ñu mën ko àggale ci suñu sago te lépp doon taw feex mm-hmm. donc bu ko defee nag yeneen yi ci des yëpp moom dama ko amelu cant ndax lii yëpp daf ko def en tant que président de la république def ko ci réew mi nga xamante ni bi dañ ko wóolu jox ko ko def ko tamit aussi euh, ci citoyen boo xamante ni bi gis na ni mi ngi ànd ak ay mbokki citoyen am di ay ndaw ñuy jéem a nekk ci benn barab di góorlu di jéem a xool nan la ñuy def ba réew mi ñu mën ci tàbbal seen loxo xool li ko jëmale kanam ñu dox ca loolu mu ñëw fekk si ñu accompagner ñu ci loolu ñu ko ci sant bu baax a baax di ko gërëm di ko ñaanal yàlla di ko waxi tamit ni ko na continuer ci volet boobu ndax actuellement Sénégal dañu soxla kilifa boo xamante ni bii bu ñu jàqee daw wuuti ko bu ñu ko tàllalee suñu loxo mu mu gàttandu ñu fob ñu soxla kilifa goo xamante ni bii bu ñu jàqee tiit daw jub ko mu bank ay loxo kon lu mu gën a nooyal digganteem ak euh, askan wi ak yaakaar ji ñu am ci moom rek yàlla na ko sama borom defal sama borom dolli ko kattan moo ko soxnaam soxna Mariam ndax moom damay toog fii jekki-jekki rek ñu woo ma ni ma soxna si daa yónnee man leen ah ñu ne waaw boo duma ma woo sax téléphone du kii dara jumaa jii may liggéey bi mu ko yëgee ca saasi xaru sax man man gën naa ko gis depuis bi sama wajur wu jigéen làqu woowu ko yëgalu ma ko def ma ko dara damaa jekki-jekki rek mu taal otom fekk si damaa yaakaar nag nit ah, ak maqaama moo mën a am ak darajo joo mën am wala nga loo loo maanaam maa ngi jéglu terme yi olof moo xaw noonu hmm. nit boo bonoon ba bokk bon yenu bon gàddu bon di demit bu la nit waxalee baat bu baax sax war ngaa mën a taxaw au retour sant ko gërëm ko ndax te nag wax dëgg yàlla ak nu mën a demee dañuy jéema rek gore suñu diggante kenn ku nekk ku mën a doon te suñu yëpp laa danaa wax ne euh, as nit boo ko defalee lu baax euh, te mënu ko wax fenn booy lim say noonu boole ko ci xaw ma nuñ ko tënkee noonu boo wax ko waaye yooyu yëpp ñun àgguñu foofu mm-hmm. li ñuy dund Serigne Touba kese lu ñu waay defal yàlla tax yàlla rek a tax nga di ñu ko defal yàlla kese moo tax nga di ñu ko defal waaye ñun moom euh, meluñu nen duñu kenn yi tamit ba tax war a kenn war ñoo defal kon mm-hmm. yàlla sama borom moom mi tax ñuy def nag yàlla na sama borom fay leen ndegam lépp lu waay def ci lu baax suñ borom fay la ko kon lu baax lii ñu ma defal yàlla leen ko sama borom fay te nag képp ku def lu baax yàlla fay la képp ku def safaan bay tamit sama borom amu ko waaye sa jëf la boo ëllëgee boo demee yaa ko fay fekkaat rek sama borom moom amul lu bon <laughs> lu baax rek la am képp ku def lu baax boo defee benn mu yokkal la ca juróom-ñeent ak ba nga defoon muy fukk boo defee safaan ba nag moom amut safaan amut lu bon suñu borom amut dara lu bon waaye yow mu ko jëfoon nag ma nga fa jëf jaa nga fa di la xaar mhm. yow yaay dem fekkaat ko fa nga xam ne lii sa jëf la woon fooy moom nga dem fa moom kon nag yàlla na sama boroom dimbali lañu te defal ñu taw feex kon kat lii moo waral kat li ngay gis ko yi yëpp ndax ko yi boo xoolee tey tabax boo gis mu taxaw fi ndaw yi Sénégal ko taxaw du kenn du kenn kenn kenn kenn kenn lu dul ndaw yi Sénégal ñooy dajale seeni i ñaar téeméer di dajale seeni i ñaar fukk di dajale seen i junni ak seen ñaari junni ñëw indil ma ko fii bu ma nee ciment ñu indi bu ma nee béton ñu indi bu ma nee fer ñu indi duñu ñu sonn du tay du ma leen sax woo ñoom ñooy jekki-jekki dem toog damaa toog fi benn bis euh, après ginnaaw bi nag ma am maanaam ma amaat tooy xol ay xale yoo xamante ne bi amuñu sax 18 ans barke Seydouna Ousmane amuñu sax 18 ans 5 lañ dama dama toog rek naaj bu tàng jër ay vers 14 heures ma jekki-jekki gis sareetu mbaam bu ñëw taxaw ñu wàcc ma gis dix sàkku ciment man leen waaw yéen fu ngeen jóge ñu ni ma maam daaru man leen ah léegi nag lu ngeen doon dox heure bi ak yéen fu ngeen jóge ñu ne ma Dakar man leen Dakar ñu ne waaw ñu ne ma maam ñun daal dañoo toog toog xalaat ñu xam ne pour defal la lu la neex ñu ñëw jënd ciment indi la barke Serigne Touba sa maanaam loolu dafa àgg ci man foo xamante ni bi dafa dafa dafa dafa dafa jéggi dayo dafa jéggi dayo loolu nag daf may dolli doole parce que fii bi ma ko tàmbalee 2008 euh, ba léegi maanaam des fois fiy jànkonteel yu bari sax doo ko mën a doo ko mën a wax mais nag àdduna mel noonu àdduna mel noonu ku ciy dund te bañ a am jafe-jafe euh, ñaare li may tooña xale yi rek naa àdduna ku ciy dund te bañ am jafe-jafe da ngay jël peel da ngay dem armeel yow booy dem nga yóbbaale peel boo demee nga gas ba mu xóot nga dugg ci te suul sa bopp da xam nga déjà loolu rek coono la <laughs> te loolu daa metti boole ci léegi nag kon lii ñuy dund akus new muy nuru yu tàng ak yu métteeg yooyu am na ku la sama borom tegal ci sa wet tuuti boo ko xoolee mbaa nga diglu ko rek sa xol féexaat nga amaat doole ngir mën a dem man ndaw ñi ñooy sama doole ndaw ñi ñooy sama kattan ndaw ñi ñoo ma ñooy ñooy sama xol tey fu ma fu ma ñemee taxaw rek ñoom ñoo tax ma ñema faa taxaw parce que saa bu ma gestoo gis leen sama ginnaaw saa bu ma xoolee gis leen sama wet fu ma nekk lu ma nekk ñu ànd ci ak man ñu leer na ñu bari bi may ànd ak ñoom di dugg ci armeel bi may ànd ak ñoom di dem ci hôpitaux yi di leen woo ñuy def ay don de sang di leen woo ñuy dem un peu partout booba lii yëpp kenn xamutoon nu mu doon dem kon nag loolu ak santaat la bu baax a baax kon daal ñu xam ne lii ma wax yëpp dama bëgg ñoom ñi nga xamante ni bii lépp lu ma neex neex leen lu ma naqari naqari leen képp koo xamante ni bii seq naa moom mu def ci man lu baax bu ma sañoon bala ko kenn xam ñoom ñoo koy njëkk a xam loolu ngeen xamee ko noonu ñëpp xamee ko noonu ñu xam ne daal maam Thierno mii toog daal jàkkaarloog yoon ndawu Sénégal ñooy dooleen